salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi am mbégte ak contentement di dalal fi nga xamante ni moom mooy Saint-Louis TV sëriñ bu mag bi nga xam ne moom la ñuy wax sëriñ Fall waaw sëriñ Fall nag nekk na sëriñ bi nga xamante ni xam-xamam dafa màcc ci wàllum faj léegi du ñu def lu dul di koy jox kàddu bi mu gën a leeral asalaamaaleykum sëriñ Fall wa radiyallahu an asxaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مبكي نغلن نيو دلن زيارة دي أم بكت بباخ سي ندار في نينان سين لي تي في سي دالال بي نيو دالال ما شاء الله جرجف سين بي داني أمون بين اللاج دالا دول لاج ني ندخ نيان بي نغا نان لاي ديف ندخ دافا نيك ليغا خامن دانكا جان ولا ليغا خامنتيني سونو بوروم مولا تامي waaw oh, macha allah ñu ngi am mbégte bu baax ak kontante bu baax si laaj bii nga ñu laaj ñaan yàlla bii ñuy def am na si loo xam ni ndoona la si su ndax suñuy maam ay boromi alquran lañ ay jaamukati yàlla lañ woon waaye ginnaaw bi ñu yàlla may ay maam yu baax am na luñ am am si ñoom doon ko si ñoom waaye lii nga xam ne tey maa ngi koy jëriñ jaam yàlla li si ëpp dama tukki topp ay mag bañ gërëm ma ku ma xam xam ne li ma yor topé momako may ak nangou ndigal sila amé li may jëfëndiko di jëriñ jaamu yalla yi tey. waaw si nonu sëñ bi dañu bëggoon nga léral ci li nga xamante ni moom mooy faral di tej doomu adama wa doomu adama li koy tëj bëri na doomu adama liggéey mën na gàllankoor ko ba wërsëgam taxaw du gitati wërsëgam liggéey boobu nag dafay faral liggéey boo xam dafay doon liggéey boo xam dañoo jàpp biddiwam. waaw ndax sa biddiw bu nëbbee rek sa sa wërsëg dafay taxaw du fenqati wala imma ñu rab jàpp ko rab tamit dana gàllankoor nit ba wërsëgam taxaw ni muy yàq dafay ni muy yàqee si si si jëmm noonu lay yàqee alal waaye yooyu yëpp macha allah képp kum jàpp bu la yàlla booleeg ñun incha allah rabbi am nañ si ay saafara dinañ si dimbalanteeg yow bu neexee yàlla jërëjëf. Ah, léegi ñuy fàttali rek ku ko bëgg a contacter da ngay woote numéro bi 77 717 717 72 72. sañ bi ñoo ngi gis ni euh, combat bi nga xamante ni moom moo war a am di Modou Lo ak Balla Gaye sëñ bu nekk mi ngi génn di si def ay pronostic naan kii mooy daan kii mooy daan yow léegi ñu bëggoon nga xam ni yow nga wax ni yow loo xam si combat bi ak kan mooy daan. Hmm. <laughs> waaw macha allah loolu nga laaj. question bu am solo la waaye man yàlla dafa def du ma ñaan si làmb ndax làmb dafa xaram yenentu sax wax na boole ñaari ginaar rek nga boole leen ñuy xeex rek dafa xaram waxtuma la nga boole ak ay ponkaliment maam yàlla ñuy dóorante loolu taxumaa jóg li ma itteel dëgg mooy ñaanal jaamu yàlla yi nga xam ni seen mbir yi dafa taxaw seen buntu wërsëg gi dafa taxaw loolu mooy sama mbir waaye ay ñaan si làmb du sama mbir macha allah xam ah, macha allah ñuy fàttali rek ni ku ko soxla euh, ki nga xamante ni moom mooy Serigne Fall da ngay woote si numéro bi 77 717 72 72. waaw Serigne Fall. Mhm. bëggoon xam ni tamit euh, ndax yow da ngay yëngu si wàllum faj euh, rab ak lan moo koy indi aussi. waaw macha allah wàllu rab dañ ci yëngatu te yàlla may nañu si jagle macha allah ñu ngi si dimbalante nit ñi waaye rab dafa am dafa sonal jamono ji nit ñi. waaye am na xeeti rab boo xam ne ñun dañ koy faj waaye am na xeeti rab boo xam duñ ko faj te rab li muy yàqal nit dafa bëri am na ñoo xam amee nañ ay rab yoo xam ni dañ ko doon seen maam yi comme xeeti rab yooyu bu ñëwee ñun yooyu duñ ko faj boo ñëwee si ñun bu la yàlla ne si ñun dañ lay yebal nga dellu si seen tuur yi ndax am na rab yoo xam ni du sëriñ moo koy faj ñooñ dañoo am ay tuur ñu bokk te fonk ñu tuur yooyu loolu bu leen daanelee si tuur yooyu rek lañ mën a dem pour mu faj waaye li si mën a am daal rab bi bu ñëwee bañ xool ko mu tombee bi dee ñun bu ñuy faj la incha allah rab bi dinañ la si dimbali ba yàlla defal la si tawféex rab nag am na lu ma si waxoon mu jur coow waaye maa ngi si sant yàlla ñu bëri woo nañ ma si waxoon naa si benn site internet ma ni rab dana jàpp jigéen ba muy fowee awraam wala mu jàpp góor ba muy fowee awraam bi ma ko waxee ñu bëri neexu leen woon waaye macha allah ñu bëri woowoon nañ ma xamal ma ni seen rab bi noonu la demee waaye loolu lépp dañ koy sante yàlla incha allah rabbi képp kum sonal daal boo ñëwee dinañ la si defal saafara bu neexee yàlla jërëjëf. ah macha allah waaye sëñ bi man fekkoon dama bëggoon mhm. man xaw mhm. ma la laay mu dëgër. léegi suñ yow pour nga ñaanal nag est-ce que macha allah wàllu kayit danañ si yëngatu su su wàll tukki loolu ñu ngi koy liggéeyee si pitax bi ñu naan pison voyageur yaakaar naa loolu xam ngeen ko. am na tegtal yu ñu siy def am nombre de bu ñu si wut waaye dafa am lu si tari bu ne ñu sànni ko si jaww ji am xeeti ñaan yàlla yuñ la defal am garab buñ la jox nga sangoo macha allah buñ la ko defaree ñu ngi ko jëlee si mag te mag moomu mag mu wér la te dimbali na si ñu bi mu ñu ko joxee ba léegi ñu sant yàlla bépp buñ ko képp nit guñ ko jox nga nekk Europe wala nga nekk Sénégal di sàkk tukki bu neexee yàlla incha allah rabbi boo ko defee yàlla dina la dimbali danga nga àgg fi nga bëgg a jëm bu neexee yàlla te sa wërsëg tamit dana ubbeeku foofu. bu neexee yàlla incha allahu rabbi. waaw léegi euh, am na li nga xamante ni moom moo am muy impuissance sexuelle. Mhm. parce que léegi nekk na li nga xamante ni yàq na àdduna bi. Mhm. ñu bëri ñu ngi jaaxle xamatuñu fu ñu mhm. ñuy laajte ni yow bi nga yow Sénégal dañuy yëngatu si wàllum faj ñuy laajte ndax yow côté impuissance sexuelle daa si yëngatu. waaw Waly Ngor macha allah ñu ngi si sant yàlla li liñ ci joxe si ay garab bari na. waaye ngóora dañ koy faj incha allahu rabbi te si faj boo xam ni dafay wér waxuñ la nga ñëw ñu jox la loo xam ni da ngay yëg sa bopp guddi sëriñ si comme li ma waxoon sëriñ su bëri fajuñu ngóora ku ñëw rek dañ lay jox loo xam ni da ngay yëg sa bopp boo ko arrêté doo yëgati sa bopp waaye ñun bu la yàlla booleeg ñun incha allah rabbi ba nga ñëw si ñun yor nañ garab boo xam ne bu neexee yàlla bu ñu la ko joxee jox la ko nga diir nga laal ko ay diir bu yàggut incha allah rabbi yàlla dina la defal tawféex te feebar bi dina la bàyyi te du la dalati incha allahu rabbi bu neexee yàlla macha allah. macha allah macha allah. Mhm. Ah, mhm. ñaar la am na externe am na internet incha allah rabbi waxoon naa tamit si hémorroïde si fenn tamit ay nit ni ma ni nga ko waxee woon. dafa ñaaw waaye dama yaakaar ni xam-xam sax yenentu may na bu ñu koy jàngalee ñu ñu waxee ko comme ni niñ ko war a waxee xam nga émérite dana jàpp nit ba ginnaaw gi neeyi ba mel ni gannaaw fas bi ma ko waxee ñu ni ma war nga seet teggin bi nga koy waxee waaye ma jàpp ni diwul ñàkk teggin damaa xam dara di ko wax te bi ma ko waxee ñu bëri tamit contacté nañ ma ni ma sama émérite noonu la mel am sax ku ma woon ni ma man su ma demee toilette sax pour ma dugalaat lii bi damay sonn foog ma bës ak sama loxo waaye externe ak interne yëpp kum dal incha allahu bi bu la yàlla booleeg ñun yor nañ si garab yoo xam ni saafara la am na bu ñuy naan am na bu ñuy diw ça dépend ñu xam bi mu doon rek bu ñu xamee bi mu doon rek incha allah rabbi danañ la jox garab bu la yëkkati bu neexee yàlla incha allahu rabbi. macha allah. ñu bëgg xam tamit sa sa kàddu si si élection yi parce que gis nañu. si internet bi comme nu koy nu ko gars yi di defee rek ku nekk ñëw ni Sonko mooy gagné. wala Macky Sall mooy am deuxième deuxième mandat léegi ñu bëggoon xam ne yow. Euh, sa point de vue si si si si bi. waaw wàll élection yi nag macha allah ñu ngi ñaan yàlla nañ ko tàmbalee si bismillah génn si sa alhamdulilah ku nekk mu ngi wax nag waaye man buzz taxumaa jug li ma mën a wax daal di ko ñaan yàlla nañ ko voté si jàmm te yàlla nañu yàlla tànnal président boo xam ni dafay gën si ñun ndax Sénégal dafa toll foo xam ne léegi képp ku wax si wàll élection yi gone yi ñu ngi làqul seen ginnaaw clavier yi di la saaga di la wax lu ñaaw. am na nag ñun ñu yàlla wan te ñu ngi si am yaakaar incha allah rabbi di ñaan kooku yàlla na ko yàlla na ko yàlla dimbali te yàlla incha allah am nañ yaakaar ni yàlla dina ko defal ndimbal te dana jëmale Sénégal fi mu bëgg a duñ tudd turam nag waaye macha allah rabbi jërëjëf. waaw jërëjëf mm. yi rafet na trop. Mm-hmm. waaw mm-hmm. léegi dañuy gis ne xale yu jigéen ñi dañuy toll si wàllum dañuy toll si série mais ñu bëri dafay metti seen côté duñu gis ki nga xamante ni moom mooy ñëw bëgg leen tax léegi ñu bëggoon nga wax ni lan mooy faral di indi loolu. waaw lenn dafa am si jigéen jigéen rab dina ko teree am jëkkër rab dana tax góor gu ñëw wax delluwaat góor gu ñëw wax delluwaat lenn tamit dana teree am ji jigéen jigéen boo xam dañ koo liggéey dëj ko. dëj kuñ moom pour dëjati la dafa du yombaat nga jug nga am jëkkër lenn tamit dana teree am jigéen di nga gis jigéen boobu danañ ko nëbbu. am na liggéey bi ñuy wax si wolofu Saalum nëbbu nit ki mën nay dox nii waaye kenn du ko gis muy jaxasoog nit ñi fekk dañ ko nëbbu waaye incha allah rabbi yooyu yëpp tegtal am na si képp koo xam ni xool nañ sa mbir daal ba xool li si ne bu neexee yàlla dinañ la si dimbali ba di nga dégg alxayri incha allah rabbi waaw. ah macha allah mhm. yow lañ fi dalal. Mhm. Mhm. Ah, daanaka. Euh, li nga xamante ni moom mm-hmm. mm-hmm. allah. Mm-hmm. ñu ñi ngi am mbégte bu baax di gërëm waa Saint-Louis te di leen wax ni waxtu wu ngeen ñu soxlaa rek am nañ temps pour wax ak yéen di am mbégte bu baax di gërëm mbokk yi ak soppe yi wa ma zalik alalaahi bi azizil wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf.